au conseil bi nga xam amul ben njëriñ amul lu muy def du décider dara né day xelal président way lu muy xelal président président le ministre de centralisation association des maires amna association des élus départementaux amna ñoo ñooñu dañu recenser problème yi ci dëkk bi dañ wax ko président kon lu muy au conseil tek fa ñoo xamni dañu natatalé rek di nos Sénégal tolluwul ci nos dëkk coono la dëkk sous-développé dëkk pauvre la dañ ko war a suqali bu jóg. waaye lu mu am ñu def ko ci ay noos ay au conseil jaagar-jaagari réew mi di sonn ku feebar doo faju ku bëgg a jàng doo jàng syndicat yi di grève ku bëgg a naan doo am robinet fi ñu taxaw ni amul ndox amul courant gis ngeen ko ci biir biir Tëngéej la ma waxoon karo rek quartier Darou Rahman dama dem quartier Camp de Garde nekk amul amul amul courant ma leen yéen te am na village dans la ville nekk Tëngéej am na village dans la ville ndax village bu doo am courant

franc yoo xam ne dañ ko comme ay comme ay tubaab comme euh, ay citoyen français muy Rufisque di Gorée di Saint-Louis di Dakar nekkate yoo ba léegi Tëngéej dëkk àll la gars